activé nga sa assurance. woon naa assurance. ak numéro bi ñu la joxoon. waaw loolu damaa génn de moo tax nekk kër nekkuma kër ga. Hmm, d'accord. waaw donc donc tey nag Babacar Diédhiou ngay jokkoog licence service ñeenteel Tigo. Hmm. donc fii ci Tigo Almadies Dakar waa Tigo ñoo lay wote ji d'accord. Hmm. yaa ngi ñuyoo ban yaa ngi ban région sori nga ñëw. maa ngi Touba nii. yaa tur bi ak sant bi naka la ñu jàll ci leer yi. man Sowru Dieng laa tudd. Sowru Dieng. waaw donc Touba nga dëkk wala ak Thiel moom. d'accord monsieur Dieng. waaye tey dafa nekk journée anniversaire Lutte Tigo mu nekk jour anniversaire Lutte Tigo tey bu nekk le dix octobre. Mhm. nekk dixième mois deux mille vingt mu nekk jour bi Tigo di fête anniversaire am. Mhm. donc chaque année bu jotee ci mois bi Tigo day fête anniversaire am donc ànd ak seen trois numéros. Mhm. donc trois numéros yi Tigo ànd ak tey suñu numéro de chez boobu tey d'accord. tey ñu ànd ci madame Awa nekk région de Ziguinchor. monsieur Baye tamit leen nekk région de Kaolack nekk suñu troisième numéro. yaa ngi dëkk ba région de Thiès dañuy war a Diourbel Touba Mbacké. waaw d'accord Tigo ji la xamante monsieur promotion trois cartes Tigo de mille francs. Mhm. trois mille francs crédit ba Tigo defal sa activation dal di am vingt cinq mille francs crédit. Mhm. am cinquante mille francs bonus am connexion au mois am deux appels gratuits appel international. Mhm. am deux numéros xam ne nga woote génn Sénégal doo lakk benn crédit. doo fay benn dërëm pendant deux mois de donc nag da fi am. donc dana ci jox sa carte d'anniversaire Tigo mu nekk enveloppe de waay mu toll ci trois cent cinquante mille francs mhm. trois cent cinquante mille francs boo xam ne Tigo moo la koy envoyé nga jël ko ci Fatick bu la gën a jege mhm. loolu fi Tigo indi woon tey defal ko madame aw woñ boobu jël ay neexal Mmh. monsieur Baye itam ñaan ba mu jëriñ ñaan tey nga nekk suñu troisième ñu woote d' accord. waay donc loolu la fi tëggee ñu woon tey lay ndax promotion bi intéressé wala déet. waaw intéressé wu ma de ndax communication bi erreur yi ñu ci def dafa bari trop. parce que Free moom moo nekk fi mu toll ni en cours. Ah, euh, deuxième bi waaw may ma ma ñëw deuxième bi mooy bu ñuy envoyé crédit wala ay xaalis ci Free ne lañ koy envoyé mais pas yi léegi donc monsieur. sëriñ bi. dañuy déglu. li ma bëgg rek mooy nga dem liggéey te bàyyi ma man. man dama lay conseiller rek waaw parce que man bokkuma ci ñiñ man a nax waaw jërëjëf waaw dama lay conseiller rek nga dem liggéey te bàyyi ma man. la ngay la ngay conseiller. waaw dama lay conseiller pour nga dem liggéey uti liggéey lii du liggéey. kon da ngay jàpp ne waaye du ngeen ay naxakat xam nga bu ngeen doon ay naxakat naxakat yi ñoo leen gën. kenn mënu leen a xaw utal baat. boo xamante ni dana yàlla ci yéen. parce que li ngeen di wax maîtriser wu leen ko amu leen xam-xam. xalaatu leen ci aussi. waaw. Baale mu ngi déedéet man du coupé yow moom yaay coupé. <laughs> yaay coupé de mais man coupé wu ma. waxuñ yow. yow yow moom yaa neex. waaw ah, yow mi toog foofu jàpp ni mën nga nax kenn ku ci nekk Sénégal yëpp nga bëgg leen nax. ay lii jéemal di nga tëdd ci eh, ñetti fanu bàmmeel. yëpp boo ko xalaatul lu nekk mën nga koo def. bàmmeel nu ah, ñetti fanu bàmmeel nu muy mel. Hmm. ñetti suñu bàmmeel kenn ku nekk la nga fa def te jaarul yoon nga réccu ko rek. àdduna am na réccu. ah am na réccu kay. Hmm. am na réccu ndax kenn ku ci nekk la nga defoon lépp compte bi danañ ko yulliwaat. Hmm. li nga wax yépp jëf yéeg yépp lenn lu ci nekk. danañ ko arriéraat de wa wajadu ma amilu xaadiran yàlla nee na li ngeen defoon lépp di ngeen ko fekk ma teg ko ni nee na du ma tooñ kenn léegi ana wax yàlla jë yow ma laa yanfau maalun wala banuun illaa man ataa Allaaha bi qalbin saliim waaw xalbin salim hmm. lii da cee bokkul tey bu fekkente ni xol bu sell tey bokkul ci naxaate boroom xol bu sell dana tal leneen waaw hmm. ah, dana tal leneen du bëgg a lekk alali jàmbur du bëgg a wax nit lu mu gëmul du bëgg a trafiquer personnalité dañuy bokkaale yàlla waaw ñooñu léegi ñoom seen sawara la ñu nekk ah man peut-être yàlla de moom mën naa koo bokkaale mën naa koo def leneen yàlla lan la lu mu wax ci hmm? lu mu wax ci yàlla yoo xam bëri de li mu wax kay bari na waaye man moom neex nga dëgg sa tànk tam. léegi est ce que yaa ngi jëfe li yàlla neex nga interprété ko mag moom neex nga kii ko waaye man ak sama sawara yow ak sa sawara bu boobaa. yàlla yàlla nangu ne yàlla wax na ne ñu ko ba dañ koy jàmm nangu loolu. ah gëm naa ko kay. lu tax defoo man ci xam xamle laa nekk man jàngalekat laa. jàngale. waaw. yàlla waxul jàng leen de. xam la dañ ma wax xam leen. <laughs> ah yow man ma xam ne xam nga li ngay wax yëpp ak li ngay def yëpp da nga dëgg sa tànk rek ma ne yàlla moom xam ne ma ne jàngaleen ma ne. bu baax xam-xam bu wóor nga am ci li ngay wax waaye lépp da nga koo teg ne le. déglu ma ma ne. waaw ah, ah. parce que yàlla ba mu ba mu ba mu ba mu yore euh, barake bi ngay wax yonent bi. boo ko ne ko ba nga koy jàng dana ba nga ko xamal de. Mm-hmm. dana ko la ko wax jàngal. waaw xam nga kooku ko wax. waaw ah. te li ngeen jàng nii mooy li ngeen wax xam ne mooy jàng. Mm-hmm. yàlla dafa wax ne xam nañ ma njëkk. Mm-hmm. foog leen ma ma de. waaw waaye gis nga dafa am lu lu lu danger mooy mooy mooy mooy li ngay def nii mooy maanaam di foo ci interprétation yi ngay jox maanaam aaya yi ak xadiis yi ak maanaam wax yàlla yi ntool li gën a woyof mooy maanaam erreur bi ngay def nii nga yem ci te bañ koo jéem a utal foo koy justifier parce que loolu dafay daal di nekk yeneen ay problème yoo xam ne dafay tegu sa kaw non man man ak rek la may wax ne yow li ngay wax maa ngi si ëpp xam-xam te maa ngi si ëpp njëriñ. dëgg la yow ngay borom xam-xam. aw ma xam-xam de parce que xale bu ndaw la. waaw xaw ma dama kenn. Mm-hmm. xaw ma dara xam-xam kenn du ko matal. waaw ah. am na ko xam-xam jeex. yaa mm-hmm. ngi dégg. Mm-hmm. fekk ngay xëy di dara xam nga ne heure boo xamee xëy. ah. day gën a critiqué boo xamul da boo xamee. di nga am loo xam ne mu ngi sa kanam xamoo woon xamoo goo ko. wér na heure boo gën di yokk heure boo gën di yokk xam-xam di gën a réer. wér na nangu nga loolu. wér na wér na. waaw xam nga man théorie yi may wax nii yëpp ah. baal ma ñëw la wax la. Mhm. parce que tey jii. Mhm. wax nga ma loo xam ne. Mhm. xaw ma woon ko. ba ma ko xamee. kañ laa ko ba ma ko waxee. ba ma ko waxee laa ko xam. li si gën a gën a loo xam ne ci kanam am mu si kanam tamit mu ngi war a ñëw te xamaguma ko. waaw xam nga waaye jàngkat bi dañuy jàngal dañuy waxoon ne heure booy yokk xam-xam rek yaa ngi dee rek ñoom oustaz jumla bi moom dañ koy dindi wérut waaw yaa ngi gën a wér. yaa leer xam nga loolu loolu na. xam nga Baay Ñas dafa am lu am solo lu mu wax. waaw. wa xul li man yaddaci fi lcilmi macrifatan xafista cheyan wa zaabat anka ashyaau. Mhm. kii woote ni dafa xam lépp. waaw ne ko eh mbokk yow tuuti nga xam am na leneen lu la fàtt bu bare bari. bu ah, waxu Baay laay nettali rek. voilà yaa ngi dégg. Euh, moo tax li nga wax du deñ saa soo xamee dara am yu bari yu la réer moo tax xam-xam bu waaw moo tax xam-xam bu bari amul njariñ njëriñ sufiyanke yi dañ daan wax ni waaw nahnu ila xalilin min al ilmi mm-hmm. ahwaju ilayna mm-hmm. euh, ñun ñun xam-xam bu tuuti moom lañ gënoon a yittewoo waaye nag teggin yu baree bari lañ gën a maanaam gën a soxla waaye xam-xam tuuti lañ ci soxla la waaye nag accompagner ko ay teggin yu bare bëri. Mm-hmm. kon loolu mooy teggin teggin woor sa moroom bokku ci. wax mm-hmm. lu dëgg bokk ci trafic personnalité bokku ci yu bari bokku ci. Mm-hmm. waaye waaye man fi mu toll nii wax dëgg yàlla. dama dama mujj kontaan daal dama mujj kontaan ndax xam naa ki may waxal boroom xam-xam la. xam naa ki may waxal tamit boroom yar la. waaw waaw maa ngi lay jégaluwaat nag sax bu baax a baax. maa ngi maa ngi wéy di la jégluwaat waaw mooy mhm. ginnaaw xar mu amuli béjjën sax bu masam bëkkee xar mu am béjjën boo lëgee dana ko saxal ay béjjën ngir mu fayu waxuma mhm. nag diggante doomu aadama ak doomu aadama mhm. nañu bàyyi loolu xel ndax euh, kull yooyu nekk ci alxuraan kenn mënu cee ñàkk jaar kullu man alayha faanin kenn ku ci nekk dana fa jaari dana dem Euh, te itam dem nga réglé moo ci topp réglé bi nag ci bàmmeel lay tàmbalee jëm ba sàq jëm nag fu kenn xamul léegi nag kon euh, képp koo xam da ngaa bëgg sa téere yi jëf nga fekk fa lu rafet kulle yow euh, maanaam kenn ku ci nekk day tal sa bopp ci benn yow ma laa ko tamliku nafsun li nafsin shay'an ba ñu dem nag ba réglé yooya sans borom maye nag kuy ràmm mu soog a ràmm waaye fekk na problème yi am na ba noppi man nag problème yooyu laay bañal sama bokk mi ngay waxal taxaw ma ko mhm. waaw moo tax moo koy laa laabiire lii bu ci mënee jóg ba sedd wecc ci moo gën boo ko defee yàlla dina la wërsëgal lu lew la bett loo xamante ni jàppoon nga ni sax mu jomm na la mhm. waaw def ko rek essayé ko nga set mhm. waaw essayé ko nga set waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf kay jërëjëf